Euh, waxtaanee charbon charbon la ko tubaab tuddee mais këriñ euh, la ñu koy euh, woowee mag ñi am ay gëm-gëm yu ñu ci bàyyeen waaw Pape Cheikh mag ñi ay gëm-gëm yu ñu ci bàyyee ndax dañuy faral di gis suñu yaay yi bu ñu arawee ba pare teg ci këriñ wala ñu mooñ teg ci këriñ loolee lépp lan moo ko wundu ñu dem xool élément bi dellusiwaat ci plateau bi waa këriñ li ma ci xam bari dama daan dégg bu mag ñi arawee ba pare mm-hmm. ñu ne jëleen këriñ ngeen teg ko ci balaa am jinne yeeg yooyu di ko soppi mm-hmm. këriñ dafa baax ci ànd mm-hmm. këriñ dafa baax ci kër boo koy def lu bëri du la dalay fànq daal lu bëri waaw su maam yi laa ko xam woon boobu ba léegi nañu topp ci maam yi ba léegi di ciy dox Këriñ Njaay am na njëriñ torop ci ci kër am na njëriñ ci dund am na njëriñ ci lu bari daal waaw këriñ lu baax la këriñ boo koy boo koy liggéey sax sa am am day naat ndax li muy faj ci nit moo bëri waaw loolu laa xam ci këriñ këriñ dañ daan wax boo arawee ba pare def ko ci pour du ko soppi xam nga bu ko daan soppi nu muy def ñam mi day xonq karaw li su ko jën dañ naan jinne da koo soo déggee mu soppeeku ñu ñëw fekk mu soppeeku fa boo këriñ teg ci dañ naan dina da koo jéggi. Hmm. looloo waral ñu naan këriñ dafa baax këriñ booy dox ba yàgg sax ba dox foo xam ni heure cate la. Hmm. wala heure diggu njolloor da ngay for këriñ dañ naan la fëral këriñ nga yor. tubaarkàlla macha allah lu bari du la ñeme guddi la nu gën a bañ jël safara du kër gi nga nekk de. Hmm. du kër gi nga ko jëlee. waaye pour nga taseet loo xam ne daf lay lor looloo tax ñu di ko bañ nga tibb xal guddi ci kër di ko yóbbu ci geneen kër même dem na ba ci roon ndox guddi di ko yóbbu ci geneen kër du pour ni kër ga nga ko jëlee lu du pour ka nga koy yóbbu mais fa ngay taseel la loolu moo tax ñu di ko wax li ñu xam ci këriñ daal macha allah bari na maam yi ak yaay dañ daan def na boo juree sa doom mu juddu nekk liir balaa ñuy def dara dañuy indi këriñ ak bale def ko ki suufam léegi dañuy del këriñ bi jël ko def ñetti bale boole ko paake def ko ki suuf naa ko liir bi mm-hmm. liir bi la ñuy njegenaayoo këriñ mm-hmm. même boo amul banti bale yi amoo paaka bi sax mais këriñ bi moom foog nga njegenaayoo ko liir mm-hmm. pour moytu ginne ak nit yi loolu mooy première li nga xam ne loolu la ñuy jëkk def ko liir këriñ booy dégg ne timis ngay génn sa kër dem dañ lay naan ah booy dem daal jëlal kër nga lokk nga yor ko wala nga fas ko mu musal la ki lu bare kii loolu daan naa gis maam yi di ko def yaay yi di ko def te kër nga yemul ki loolu ndax léegi la gaz kew waaye balaa gaz matt la woon te matt muy indi këriñ këriñ bari na lu muy jëriñ mm. bekki seet bekki xale yi jong macha allah dañ leen di defal këriñ voilà mbokk yi mu ngoog euh, loole mooy gëstu bi nga xam ne Marianne def na ko ci euh, euh, këriñ charbon c'est-à-dire Mado sax daf ñu wax ne ci wàllu bien-être boo jëlee këriñ dugal ko ci frigo day dàq xet. Hmm. waxutuma la ak yeneen i bagages yoo xam ni mag ñi jàngal nañ ñu ko ci këriñ ak njëriñam. dëgg la Pape Cheikh suñu mag ñi dañu bëri woon hygiène gis nga même suñu bëggaan socc seen bëñ yi pour mu set sax hmm. dañuy jël këriñ di ko ko bombee. donc hmm. këriñ dafa nekk loo xam ni dafay setal bëñ mais dañuy faral di wax. <laughs> Delphine. <laughs> Cyril Cyril Bathily Cyril Bathily Cyril foo jëm ah ok donc doon jëli ndekki li d' accord am nga chance. <laughs> donc Pape Cheikh bandkat yooyu la ñu doon bàyyi jàmbur Pape Cheikh hmm, yàlla ma yàlla àtte ak moom ci 2019. <laughs> donc dañuy faral di gis Pape dafa am ay nit yoo xam ni euh, xel bu tey daf leen di faral di yomb. Ah. donc mag ñi dañuy wax ni da ngay jël këriñ. Hmm. Euh, soo ko foree nga dugal ko ci sa diggante nopp bi ak. ak bopp bi nii. Uh-huh. képp ko ci diggante nopp yi mhm. dafa nekk loo xamante ne bu saxee xel tey mm. daf koy dindi mm. euh, dañuy faral di gis aussi ay nit yoo xamante ne euh, dañuy nekk fii nii Sénégal ñu am ay mbokk yoo xam ni dañu nekk bitim réew euh, ñu dem ci sëriñ ñu wutal leen saafara wala dara mm. ñu bugg ko yóbbu à l'étranger léegi dañuy wax ni garab soo koy yónnee maanaam saafara soo koy yóbbu yóbbu dëkk ak dëkk mm-hmm. da ngay jël li nga xamante ne moom mooy moom mooy këriñ mm-hmm. nga daal di koy dugal ci li nga xamante ne moom mooy garab bi pour mu mm-hmm. bañ a yàqu koy yóbbu à l'étranger wala zone boo xamante ne leeru la ndax dafa am ay rab wala ay jinne yu bon ngir ñu bañ a euh, yàq li nga xam ne mooy saafara boobu da ngay jël soit bouteille bi wala bu nekkee këyit la ci enveloppe nga jël këriñ gi nga def ko ci biir euh, dafa am ay nit yoo xam ne également tiit daf leen di yomb Pape Cheikh euh, dañ lay wax nii su fekkee da ngay tiit guddi aussi mën nga jël këriñ nga fas ko ci benn morso defaale ci li nga xamante ne mooy kaani nga dugal ko ci sa suufu lal wala sooy faral di génn jigéen ñi dañuy gis ñu def këriñ également fas ko ci seen soutien yi wala yooyu pour mhm. pour timis yeeg yooyu mais nit ñi tam dañ koy jël di ko faral di def si si seen biir poche yi ñii di nga xam ni dañu am problème di di yuxóot suñu suñu lekkee ba pare yooyu ñooñu tam dañ leen di wax ñu jël euh, këriñ boo ko defee xal mhm. nga xooj ko naan ko loolu tam bokk na si loo xamante ne dafay dindi li nga xamante ne moom mooy yuxóot muy muy muy mm. këriñ euh, am na ñoo xam ne aussi waaw dañuy wax ni euh, koo xam ni cat daf ko sonal tam mm. soo demee ci këriñ xam ba ñu gilli ko maanaam nga jël xam nga kër en général si si si dëcc yi euh, matt la ñuy toggee mm-hmm. donc ñu jëlee matt bi ba fay ko ak ndox ba pare xam nga li ciy génn daanaka këriñ lay nekk nga jël ko daal di koy indi sa kër def ci ndox di ko sangoo loolu nee nañ baax na bu baax pour dindi li nga xamante ne euh, moom mooy moom mooy moom mooy cat euh, bu weesoo loolu également am na ay nit yoo xam ni dañuy dañuy faral di am ay coow yu ñuy dugg coow yu sérieux yoo xamante ne këriñ bokk na si loo xamante ne daf koy fay mm-hmm. dañuy wax ni soo jëlee potu ndox nga tari si set fatiha nga daal di jël euh, ndox bi euh, nga ñëw si xal yu tàkk ba yanj mhm. nga ñëw di ko wis nii man diw sama coow sàngam mhm. maa ngi ñaan yàlla ni ndox bi di fayee saafara bi yal na sama coow sàngam fayee noonu soo ko fayee yëpp ba mu jeex nga daal di jël këriñ gi daal di koy gas ba mu xóot nga suul ko donc loolu bokk na si loo xamante ne dafay fàcc li nga xamante ne day dindi li nga xam ne mooy coow nit koo xamante ne waaw dafa am ay ay dafa am coow wala ñi nga xamante ne dañuy dañuy samp kër également bañ kër gi am lu bon lu si nekk ak yooyu dañ lay wax ni booy def sa fondation si quatre coins yi ak si digg bi da ngay jël kilo këriñ nga def ci euh, lu ñuy wax rand benn garab la bu ñuy jaay ci marché bu tudd rand nga boole ko ak xorom également nga suul ko loolu tam baax na si pour dimbali la euh, ci kër gi nga xamante ne moom moom ngay sanc mag ñi ñi nga xam ni ñoo dëkkee boori Saalum également dañ daan def premier ndoxu taw bi soo ko jëlee boole ko ak këriñ di ko sangoo daf lay permettre feebar yuy am ci ci ci ci année bi yàlla daf la mm-hmm. ciy suturaal mm-hmm. donc loolu léegi lépp ñu ngi ko daan defee ci këriñ ak li nga xamante ne moom mooy moom mooy ndoxu taw mm-hmm. su fekkee da ngay da lay daloo sa oto tamit Pape Cheikh dañuy wax ni nga jël ndox daal di jël xal yi nga fay ko ci biir nga jël set xal nga fay ko ci biir ndox après nga wis ko ci biir oto bi donc baax na ci oto boo xamante ne da nga koy da koy waaj da nga koy dal daa bëri njëriñ moom waaw ah, donc donc loolu yëpp loolu yëpp boo bëggee musulu ci ay maa aussi Seck Assane Seck bii mm-hmm. rek sànni leen këriñ araw dama daan jël këriñ bi dëbb ko ba mu mokk bàyyi leen ba ñu sol yére yu weex rek nga leen koy nga leen wis seen yére di gis nga gis nga këriñ boobu nga dëbb ba mu mokk dañ daan gis ay nit yoo xam ni dañuy am góom mais dañuy am difficulté pour mu cicatriser wu góomu robaale justement loolu la ñuy wax léegi ku ko si am gis nga yow yow lu kii wax li mu wax yow parce que moom moo ma ko ndax du sax nga ñëw tey gis ma sol may ma rek da nga ñëw tey gis ma ma nduru këriñ nga indi këriñ teg. <laughs> non yow da nga xam ne damay waxtaanee këriñ sa programme nekkul woon këriñ fii ko changé. Eh, waaw amul problème léegi nag këriñ bi boo ko dëbbee ba mu mokk. Mm-hmm. nga taf ko si góomu robaale bi daal di koy mm-hmm. bandaas oustaz daf koy daf koy wéral. donc waaw dama la bëggoon laajte parce que damay gis ñuy def bu ñu arawee. ak mm-hmm. bu ñu euh, mooñee ba pare. le temps muy wow dañuy jël benn këriñ sànni ko ci digg bi. waaw non seulement day tax du ënn génn Pape Cheikh mais dañuy wax ne xam nga comme dafa bëri loo xam ne ñun ñi ñuy gis ak ñu dul gis mm. mën nañ ñëw di ko jéggi wala ñu koy soppi comme mag ñi ñu tàmm di wax ah. mm-hmm. moo tax léegi pour bañ loolu changer dañuy wax ne nga jël benn doomu këriñ nga teg ko si si si digg bi donc loolu loolu moo si njëriñ li mm. bu weesoo loolu Pape Cheikh euh, lay wax ni lépp loo xamante ne xal la bu ñuy bu ñuy euh, saafara la wala loo xam ne dañ koy xoj si biir xal dafa nekk loo xamante ne daf lay musal di la muccal de maanaam xeetu tojtal la comme nu ma ko mën a tuddee mm-hmm. tax na dafa am ay nit yoo xamante ne dañuy faral di am engine boo amee engine dañ lay wax ni nga jël xal euh, nga def ko ci biir ndox bi nga koy mm-hmm. naan am na ay aay la ciy bindal mais noonu également baax na loolee lépp mu ngi nekk loo xamante ne dafa dafa nekk si si si biir këriñ donc euh, këriñ dafa bëri ay njëriñ yoo xamante ne wax naa ko sànq euh, wàllum rab ak jinne ak ñi nga xamante ne ñooy nitu guddi ñoom ñemeñu ñu li nga xamante ne moom mooy këriñ donc mag ñi bari na si yuñ si daan faj ay yukkoot comme ni ma ko waxee mm-hmm. ba ci xale yi nga xam ne dañ leen di xarafal Mhm. ñoom tamit ci seen ay gàllaaj dañu leen di jëlal këriñ rek daal di leen ko siy tappal donc ñii di doxi timis wala njolloor dañu leen di digal ñoom tam ñu jël këriñ euh, di ko yore tout le temps ci seen yaram donc këriñ Pape Cheikh euh, bëri na loo xamante ne moom la ci mag ñi daan daan liggéey bu baax mu ngoog defe naa loolu am na solo euh, Mariam ci gëstu bi nga ñu indil tey ci pàcc boobule di gëm-gëm donc muy këriñ dégg ngeen li ci mag ñi wax ak njëriñ yi mu ñu mën a amal mën ngeen wéyal waxtaan bi ci gëm-gëm ndaxte du ñu am jot gën koo développé mais mm-hmm. daal euh, saa yu Marianne gëstoo ci gëm-gëm rek on se rend compte que mm-hmm. euh, na ay mbir yoo xam ne ni euh, mën na saafara mën na indi ay solution yu bëri te du jar sax ñuy wuti leneen ndax fii la ne te yomb naa am donc kër yi defe naa yomb naa am mm-hmm. muy ay muslaay ak ay yenn ni saafara yoo xam ne ni daf koy indil daf ñu koy indil plutôt ñu lay gërëm bu baax Adja Diop